asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte di teewaat ci seen beneen numéro bu bees bu almuumina almuumina bu tey bi nag ñu toog ak benn ndaanaan boo xamante ne euh, wàll wu muy yëngu euh, daf cee doon jàmbaar macha allah kenn dootu ko ci présenté muy soxna Ndeye Fatou Ndiaye mama maman ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di fay di kontaan ci invitation bi di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur. sant Serigne Fallou Mbacke ak njabootu Serigne Bamba gi ak xalif général yëpp ak suñu président de la république ak soxnaam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan nag ci woo bi ma wootee ji ci émission Al Moumina Al Moumina lan la tekki. waaw jigéen bu gëm yàlla loolu foor na émission bi foor na am na maanaam macha allah. macha ñun ñëpp xam nañ ni que Sénégal fii yow loolu kenn dootu ko laam-laame yaa ngi soraanoo nga bokk ci ndaanaan yi nga xam ne comme ni ma ko waxee léegi kenn dootu leen présenté mais man li may bëgg ñu ñëw rek mooy bu weesoo way bi yow sa sa xaleel fan nga fekk baax. waa xam naa moom dinañ ko waxaat ndax nee nañ euh, ki lay laaj. te lim lay laaj mu xam ko waaye bu la ko laajee da ko koy wax man fi ma fekk baax kajoor kajoor laa fekk baax sama papa ngaay la dëkk sama yaay Loyen Baar la dëkk yaayam njaxeer la dëkk man diggante mbul ak njaxeer laa dëkk ak Loyen Baar ak Ndande Fall ak Andulaay nag sama kër baay foofu laa cosaanoo. foofu laa fii Dakar gi nag laa juddoo man nag yàlla def na samay waajur foofu lañ dëkk. dem naat fa dinaa fay demit waaye nag fii laa juddoo man Ropo Mandel gi laa juddoo tubaarkàlla macha allah. jàng nga ba ban ba ban classe. jàng naa ba sori tuuti rek ñam tuuti rek comme mm, fi artistes yi yam rek fi naan yi comme que baaxee nañ ñu ko. koo wax boo nee boo nee cm laa yam ñun la foofu la ndaa foofu la artistes yi di yam ñun tam foofu la ñu yam njàng mi moom. mais njàng mi des fois yéen da si day nekk ñoo xamante ne euh, xel mi day neex macha allah. Mm-hmm. mais ñoom ñooy bëgg bàyyil seen bopp pour dugg si aar walla loolu yow yow lan moo la daloon yow xel mi neexoon na walla. man nag ba may jàng yàlla dafa def moom ba may jàng moom sama xel neexul woon parce que sama xel neexul woon ci njàng mi ndax sama musaan dem école damay woy amoon naa leçon boo xamante ne suñu waa rek sama yaay ñëpp a ko yëg ñëpp ko mujj man te man mënuma ko mooy la temps fait <laughs> ndax leçon boo yàgg jàng te mokkaloon kër gi sama papa man na ko sama yaay man na ko sama wujju yaay man na ko sama saal bi gi nañ ko ak sama sœur bi ma koy jàngal mati waaye man mënu maa fexe ba jàng leçon bi le temps qu'il bi ma nekkee bi ma dégg nekkee sama ñetteelu classe quatrième xam nga ci lañ lay commencé dugal bindal leçon mm-hmm. nag ci lan ci laa ci laa ci laa commencé am leçon boobu nag le temps qu'il fait le temps waaye bi ma ko xisee ba mag fu ma toll maa nga naan le temps qu'il fait le temps sas la température du ciel la pluie et waaye daataa ma koy man sama yaay lu ne wan na ma ko ci suñu toogee ñu commencé ci leçon bi ma war koo jàng ma ne fa du ma ko man sama yaay naa ma ndey ne le temps qu'il fait ma naan le temps qu'il fait <laughs> non nañ ko dagg foofu <laughs> loolu loolu xam naa ne mee na bi ma rëccee foofu rek nag xel mi dafa mujj neex na ni ma rëccee quatrième ba commencé def kii xel mi dafa mujj neex waaye booba sama xel mépp nag ci génn ci école ba rek la nekkoon waaw dem way waaw léegi ba nga génnee ci école bi est-ce que automatiquement da nga dugg ci way bi wala na am yeneen liggéey yoo xam ne bi ma génnee ci école bi sama yaay daf ma doon wax man doo taxawaalu après dugal ma centre social benn centre bu nekkoon Pikine ndeysaan maa ngi ciy nuyu Ndeye Sarr ak Sophie Tall ñoo ñoo nekkoon sama monitrice léegi ay ay ay mère lañ kom man Sophie Tall ma gisee danaan ma yow xale bu ndaw nga waaw <laughs> ñoom ñoo nekkoon samay monitrice ma ko doon jàng fële ci sens social fa nekkoon jàng naa fa moom it ay at ci kii woyu kii yooyu ñaw boobu di ñaw dèjà bi ma amee taaw sax valise bi ñu ko defal presque man maa ko crocheté maa ko maa ñëw kii boobu da ngay ñëw ay defar sa valise man maa ko defoon bi ma jógee tam ci kii bi doon naa boole ñëw bi ak létt tam parce que dama ñëw fekk sama maam di létt bi jur sama yaay sama yaay tamit di létt ma commencé létt ba ubbi woon salon waaye lépp daal dama ko boole woon ak aar bi ndax yooyu yëpp tam bu ma nekkee bu ma nekkaan ca salon ba yenn saa sax nit day ñëw ma ak sama xarit ñoo ko bokkoon ubbi ku ñuy wax nuuj lay ñu tudde ko la jaxaay boobu temps salon salon bëriwut ñu ubbi ko rudde ñaay salon bi siiw la si waaye yenn saa yi nit day ñëw sa bëgg a déet du ma fa fekk ndax booba dem naa ci ngénte yeeg ci ceet yi wuti xaalis di taxasu yeeg di rek di way rek boobu way moo nekk sama bopp mm-hmm. waaw mais nag foofu yëpp jaar naa fa nag mm-hmm. Mm-hmm. léegi yow euh, bu weesoo li nga xam ne mooy xew yi di ambiance ak yooyu euh, yow bi ngay bi ngay doog commencé way ci ci orchestre da nga doon aaw wala da nga ñëw nekk lead lead vocal bi. waa dama njëkk nekk lead vocal bi boobu temps dangay dem ñaan trans RTS ñu may la ko. Mhm. nga dem ànd ak say sabarak boobu temps studio yi yombul. Mhm. ay cameraman yi amul nii yombul boobu temps fenn rek ngay enregistré mooy foofu. Mhm. à saint maison mooy kër gi euh, rajo bi jàkkaarloog Sorano. Mhm. da nga yow suba teel ànd ak say xalamkat say woy say awukat ak daal di foofu enregistré man loolu laa njëkkoon a def. ko woy Serigne Fallou waaye Serigne Xabaan woy soxna maam Marème Mbacke woy sëñ Fallou woy woy woy woy sama xarit nuñ may sa woy daal ay yu bari. Mhm. ci la nag sama benn euh, tante sama yaay ki ne laan nag léegi woo ma ni ma vraiment dama bëgg ñuy ànd. ci laa bàyyee loolu ay temps. ànd ak moom lu mat ay huit ans gis nga gis nga clip yu bari man ak clip yu bari yu mu def man ak moom ñoo mën naa ko aw ba léegi si sax buy dugg studio daf may woo ma jàppale ko mm, macha allah mm. Mm. Euh, booy macha allah mais yéen yaakaar naa doo leen am jafe-jafe ah. ndax da ngeen di aawunte dama gis sax euh, kuy làkk bambara wala leneen mais yéen olof yi da di mm-hmm. tontu ci làkkam mm-hmm. ñun dañ koy tontu dañ koy mbaar dañ koy jolli waaw bambara buy woy dañ koy mbaar dañ koy aw non seulement am aw rek aw rek sax xëy na mun naa yomb waaye kuy woy culture am nga topp ak moom ca couple di ko woy moom ba mu daanu loolu soraanoo rek la am bu alpulaat bi woyee noonu bu séeréer bi woyee noonu ñun tam olof yi bu nu woyee ñoom tam noonu lan nuy toppee léeg-léeg benn séeréer day jolle wala benn alpulaat ma ne ma ne leen ay waay sàmm yéen ñii yéen ay olof ngeen loolu moo xam soraanoo la fax loolu moo fa xew li tax mu am fa liggéey xam nga ñoom ay fonctionnaire lañu. mais loolu maman dina jafe de léegi loolu lan nan lañ koy defee dañ leen koy bindal ci kayit ngeen koy jàng wala nan lay demee. xel mu neex mi rek moom nga wax léegi li ngay def boo ci defee sa fulla sa jom bu nit wayee ñaari yoon rek nga man ko awu. waaw ñun tukkuloo day way ñu awu ko jël leneen di ko ca dollil man dama dama dama dama dama dama dañ kumpa yenn saa yi euh, ku mel ne Atta la day way wala Mari ngoone ma ne ko lan nga wax. su ma ko waxee ci ci olof ma ne ko dolli ci li làkkal li dolli ci ñu may seetaan ñoom tamit noonu nag yenn saa yi damay ñëw man tam indi sama way lépp loolu nag li ko waral mooy liggéey waaw liggéey mooy sama way bu bees bi loolu laa woy am soxla faj ko doy na teraanga kaay leen du daani doole liggéey li nga bëgg boo ci saxee dàkk di ko liggéey rek loo ci bëgg man nga ko cee am. yaa ngi ci ñaata cassette fi mu nii. man maa ngi woon ci sama quatrième cassette. mooy Seydina Mohamed bi ma woy def ko clip bu bees bi seetaan nga ko. mi ngi daw ci télévision yi tubaarkàlla macha allah TFM jàpp na. rafet ngeen def si ay kaala yu rafet macha allah. la yow def ci affaire naar woo ak yu nekk Sorano te génnul Sorano. Mm-hmm. ndax ñoom laa woo ñu déguisé wu defal ma ay ay kii yu rafet yoo xamante ne vraiment Papis Niang mi ko doon mi ko doon jël dafa kontaan. waaye maman laataa ñuy yeggali rek dañuy dem jëli publicité ñu dellu si waat ah, publicité ci la bokk na mm-hmm. mooy safa xorom affaire yi <laughs> jaajëfal suñu mbokku partenaires yi ñuy suivre euh, maman ñoo ngi woon ci ci Sorano ni ngeen di dundee euh, yéen ethnie yi nga xamante ne yéen fa nekk awunte beeg yooyu mais fi mu nekk nii suñu ñëwee ci wàllu koor gi yéen da ngeen jël congé waa Sorano wala. déedéet waa Sorano nag moom koor gi duñ jël congé ñun toujours mois d'août la ñuy jël congé mois d'août di tëj ñëpp directeur yeeg personnel ba fa nekk yëpp jël congé. congé payé ngeen di am wala. waaw congé payé am ay fonctionnaire la ñu ay fonctionnaire la ñu dañuy nekk foofu ne ñu ñuy fay suñu salaire bu ñu neexee ci ci ci ci banque bi lay jaar yëpp dañoo dañu defay na suñuy droit defal ñu bañ ba mu baax vraiment. Sorano moom kër la goo xamante ne ku fa nekk waroo sonn ndax aar dafa àndul ak coona ay woy àndul ak ñàkk ndax booy woy da war a am sa xel dal nga bàyyi la nga war a bàyyi sa kër. def na nga war a def sa njaboot too sa njaboot ndaxte Soda Fall day wax wax bu riis daf naan euh, bu leen bu fekkee intellectuel dinaan leen jàng ngeen ba dem France ñu woy ba dem France fekki leen kon nag ci réew mi la ñu bokk am di fi bay nag suñu waar ku nekk la la yàlla séddee ndax bu woy amul woon tamit du baax. maman woy di woor métti na yaa ngi ko doon wax sànq ma bëggoon xam yow su fekkee jour yi nga demulee Sorano nekk ci kër gi naka ngay passé sa waaw man nag eh, damaa nekk nit ko xam damaa bëgg dallu moom damaa bëgg tëdd presque su ma demul Sorano demuma fenn presque Sorano sax mooy tax ma yeewu fajar su ma amul tudd bu may dem man su ma nekkee sama kër damay nekk sama nekk tëdd seetaan tele wala ma déglu rajo dallu daal mun naa faa xëy nag dafa tëdd dafa tëdd suba ba midi du may du may du may yëngatu foofu parce que dañu ma kumpa xaw ma li xaw ma li xew ci kër gi ci ci ci ëtt bi damay tëdd dallu bu baax waaw man loolu bu ma mu soraanoo rek moom boo ñëwee sama kër da ma fekk ma maa ngi tëdd dallu. maman yow jot nga jàng alxuraan. waa xam nga ñun suñu kër sam dafa moo doon jàngal ay doomam moom alxuraan moom boo juddoo ba am ba am 5 rek dalay lay commencé di la sax waaw ci boppam même Sala Bigué mi moo ko moo ko dalaloon alxuraan muy jàng. bi nga demee nag ba mu xamante ne léegi war na ko wutal nag benn kii ka ñu encadré ko pour mu am ci dara ci la ko soog a yóbbu ci arabe bu nekkoon foofu ci la jàng ba moom am am am na am na moom certificat d'arabe moom saal bi am na ko mais ñun nag suñ papa moo ñu daan jàngal ci kër gi waaw jigéen ñi moom moo ñu daan jàngal waaw. mais jàngal bi war na am benn saar boo xam ni moo la xawoon të saar boo xam ni buñ la waxee jàng ko comme comme sànq li nga waxoon si rek sa sa boobu noonu ca saar bu mel noonu nga xam ni da nga am difficulté pour mokkal ko. may ayaatu kursi <laughs> boo moom dama ko bëggoon parce que bi ma ma xisee ba kii tuuti rek dama cee yeewu parce que damaa dégg ngëneel yi dañ ma waxoon ngëneel yi ci nekk. te comme que ñun dañuy génn dañuy guddee te dañuy dëgg ñu ne ayaatu kursi yu boo ko tiflee sa noon sax mu jàndaxe ma bëggoon a man ayaatu kursi yu mënuma ko woon ca booba jamono nag waaye léegi wut naa ustaas bu ma ko jàngal ba ma man ko waaye duma leen ko taril de. waaw doo ñu ko tari mais laataa ñuy tàggoo. <laughs> doo ñu ko tari mais léegi li ñuy def mooy. Hmm. Euh, téléspectateurs yi dañ leen tàmm euh, di jox. Hmm. ñaan. Hmm. balaa ñuy tàggatoo. léegi ñu bëggoon rek yow nga may ñu benn ñaan rek. waa ñaan bi benn léemaay rek nee nañ daal boo xëyee suba teel boo jullee fajar ba sëlmal dangay tari boo waxee ons billahi mina seytaan rajim bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim da ngay tari fatiya gëmm tari fatiya xool sa benn bët tari faatiya xool sa ñaari bët tari faatiya boo ko yendoo kenn du la man ci yow dara waaw loolu daal mooy léemaay li ma gën a ñor man ma di ko def waaye ay ak yaa salaamun juróom-ñaari yaa salaamun fii juróom-ñaari yaa salaamun fii juróom-ñaari yaa salaamun boobu sama mag ma ma ko digtaloon jaal mbaay nee nañ boo koy def yàlla mën naa def AVC yu xew yi nekk yu jamono yu bari yi du la dal waaw kon nag ñu jàpp ci yooyu rek yaakaar naa ni ñaan yooyu am na solo mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ko tey suñu invité bi macha allah nekk ku xorom bu soxna Ndeye Fatou Ndiaye moom tamit liggéeyam eh, eh, eh. léegi moment nag euh, émission bi jeex na mais balaa ñu tàggatoo mhm. faw nga tari léegi dañ lay bàyyi nga tari correctement xulo xuluwa laaw axat ul walaawu ahadu allahu samad lam yalit walam yoolat walam yàkkun la woo ku fat macha allah yow ah. xam naa waroon nañ la ko araba man nag dama bëgg alxuraan bi foofu ma fa yóbbu bu ma fa demee ba arabal maman suñu waa tàggatoo gërëm ñëpp ku lim fàtte doo juum da ngay fàtte maa ngi sant ñëpp di sant sama waa kër di sant sama famille di sant sama goro di sant ñëpp yal nañ yàlla may jàmm ak sama yaay nag ajaratu Fatou Mbaye ma ci kër ga nga xam ne macha allah doom lu mu am yaayam la ñuy ñaan nag ci yàlla yàlla yokk xéewal yi suñu kuréelu bëgg fàllu gi jëm ca kanam. lépp maa ngi lay ñaanal Mariane di ñaanal Pape di kii nag moom sama doom la ndax moom Boga Mbaye sama sama doom moo nekk xaritam bi Boga Mbaye waree dem école def formation dafa koo gis wax ko ko bu ñàkk ki ñaan. bu ko neexoon danañ école bi ma génne du ma fa dugal kenn. mais def ni demal ci école sàngam boo fa duggee boo fa toogee boo fa amee diplôme bu soobee yàlla di nga tekki dara ci réew mi xale bu ñàkk ki ñaan la faal. di sama doom di sama lépp maa koy ñaanal di ñaanal mbooloo mu jullit yal na yàlla def jàmm. yal yàlla def jàmm ñun itam ñu lay ñaanal jàmm jooju nga ñu ñaanal di ko ñaanal mbokk téléspectateurs yi toogoon di ñu seetaan di jaajëfal établissement Fallou Col nekk partenaire ci émission bi di jaajëfal itam Ablaye Diop borom Touba Couture moo ma génnee si yére bi maman suñu bulay sax xaw na nduróo waa xaw na nduróo man <laughs> tamit jama couture rek waaw jama jama couture rek moo ma génne fii mooy defar ba mu baax ni ma jox may sol. kon mbokku téléspectateurs yi lii moo nekkoon seen émission Al na bu tay bi ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah.